ñu ngi lay ñu ngi lay sant fu sant fu sant tàmbalee rek ak mu yàpp tey moom damay tey moom danga may giiwal micro bi ma wax. <laughs> danga may bàyyi njëkkalu ba rek. takkal micro bi ma wax ndax damaa bëgg damaa bëgg sama sœur bi. dafa am taxawaay bu yaatu boo xamante ni moom la def fii ci bi tey. Mhm. ñu am ci mbégte lool. Mhm. ndax àdduna moom ku ne xam ne suñu borom li ko gënal ci doomu aadama mooy li ko gënal. Mhm. mooy joxe tey di guddi gàmm di bisu gàmm mu yëkkati ay xéewalam mënoon ko def fu nekk ku ne xam na ne jamono fi mu toll mu jël xéewal yooyu yëpp tey dajale soxna yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi yëpp jox leen ko ñu mën a togg yóbbu seeni kër yi boo la togg bi yóbbu bi rek waaye dajaloo bi yàlla dogal ñu dajaloo ko nekk ko loolu day taw féex waaw man de li may wax rek li may wax rek mooy mooy mbégte mi nga xamante ne maanaam tàmbaliwul fii dafa dafa donc loo xamante ni. dafa jiitu moom juddoom. ay waajuram nàmpatal ko ci. mu yaru ci. màgg ci ba xam ko. du projet bi tey. wala gàmmu bi ñuy gàmm fii moo tax tey. fii kër gi daan togg ay reer di ko joxe ci gàmmu. ndax moom mi yàgg na fee ñëw di séddale ay ginaar. ren nag dafa gën a taw fee xeeti. ndax yàlla dogal na mu indil ñu fi ay nag. defal ñu ay xéewal yu yaatu boole ci xéewal bu yaatu mhm. ñu ne déetawaay mu dajale soxna yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi mhm. euh, nekk fi mhm. ñu dajaloo nekk benn toog ci benn jotaay di toggandoo ku ne mën ngaa togg sa biir kër ndax ku ne am nga ko mën nga ko defal sa bopp mais lii day day mbégte xam nga dajaloo bi mhm. rek dafa nekk lu rëy ci suñu borom mhm. dajaloo bi nga xamante ni moom la jullit ñépp dajaloo mhm. ànd nekk benn say toggandoo benn ñam bokkandoo ko lekkandoo xam nga loolu day taw feex loolu nag dañ ko ciy ñaanal moom mi nga xamante ni moo ko def te yàlla rek tax ndax bi koy jëf ji bi mu koy def man mii la ko teg ci sama loxo te bi mu ko tegee ci sama loxo ndax maa xamal ne ma buggul kenn yëg ko naa ko joxe ci sutura macha tey li fi am nii yëpp maanaam day loo xamante ni tey mbooloo mi ñoo dem ba génn ci ba yàlla dogal ba mu yegg fii muy doon loo xamante ne nag man damay am mbégte yaatal ko pour keneen dégg lu mel nii jàngee ci moom moo tax mu koy yaatal nii ba ñu man a mu yegg fenn euh, fu nekk parce que damaa bëgg nit ku baax ku ko dégg rek xam ne nit bu la yàlla dénkee xéewal dénk la wërsëg lenn nga ci war a def mooy fexe noo mën a taxawoo jaan bi parce que ñun ñii kat bi muy ñëw di ñu jàppale ci suñu daara ji mhm. yitte woo woon nañ ko tolloon nañ ci moment yi nga xam ne dañ koo soxla woon mhm. bi mu ñéegee def ñoo teggil safu rëy macha Allah waaw mhm. tey tamit waa koñ bii nii tey ñàkkuñu ko parce que ku nekk mën ngaa wut say ganaar wut sa ndawal dugal sa kër topp yow ak sa jabar ak say doom ngeen nekk ndeysaan macha Allah mais xoolal génnal ci mbedd bi nga xool soxna waa koñ bi ñu toog dajaloo nekk benn teg benn cin uh-huh. toog eh, teg seeni cin di ko togg uh-huh. pare séddoondoo ko ànd mbégte moomu uh-huh. tey yàlla dogal na ci xelam bu sel ak bëggam lu baax foofu la ko yàlla jaarale ci ba mu yegg si foofu xam nga nit ki moom euh, doomu aadama souvent boo koy woo da nga koy woo ci ak bëggam doomu boo bëggee mu fekk si la ci li mu nekk da nga koy woo ci bëggam man souvent damay toog ba mu neex ma ma dajee benn daara wala kenn su ma nit ñëwee sax di ma wax ci waxu daara wala mu wax ma ci wàllu jàkk wala dara. Uh-huh. damay sawar damay yàkkam ji. Uh-huh. pour informer ko des fois benn jour mos naa kaa woo maa ngi génn ci buntu jàkka ji rek. woo ko téléphone. Uh-huh. di ko di ko xamal ne ko. dama am lu ma loo xam ne dama koo dégg. muy daara ji dañuy sàkku. dañuy sàkku ndimbal ndimbal. gis nga léegi jumaa ji dañuy sàkku ndimbal ma yaatalal ko ko gis nga léegi pour moom mu ci saa si daf ma xamal ne ma xaaral ma bindal la chèque nga yóbbu ko ci jumaa jooju ñu jënd ko ciment man mi di wax ak yow dugg naa ci jàkka di julli julli ba pare xool moket yi mu xaw a euh, xaw a màgget tuuti am ay suuf yooyu ma génn ci jàkka ji woo ko mu bindal ma chèque ma dem jëndal leen moket ñu lalal leen ko kon yooyu euh, du du dara lu tax ñu koy seede. ndeysaan waaw seede bi ñu koy seede nag. Uh-huh. c'est juste pour que nit ñi doomu aadama yi. Uh-huh. ku ci nekk sama classe yi mën cee jàngee tey. bu mu ëllëgee comprendre ñu xam ne xéewal bu la ko yàlla dénkee da ko war a delloowaat parce que. Uh-huh. dénkaane suñu borom la yàllaa ko jox. ndeysaan du njàmbaarte. du ngóora du dara. du yàlla di jagleel doomu aadama la. bu la ko yàlla jagleelee nag yow mënoo cee def dara lu safe lu dul. fexe ca ca jaamu yàlla yi nga xamante ni ñoom la la yàlla booleel ci kaw suuf mhm. nga fexe ba ñooñu mhm. xéewal googu delluwaat ci ñoom macha allah moom nag daf cee neex a ñaax mhm. parce que saa su ne boo ko ci waxee day nekk loo xamante ni mbégteem lay doon day nekk loo xamante ni parce que xéewal yi man maa ko man maa ko wecceeku ji woon indi ko fii ci koñ bi te bi ma koy wecceeku ji dafa fa ñu demoon dafa maa xamal daf maa xamal ne ma xoolal lan mooy doy ngeen jënd ko indi ko nag yi bi ñu koy jënd dañ ne xoolal nag yi nga xamante ni yi leen arrangé. ngeen jënd. macha nekk nekkuma sax di dugg ci biir fora ci bunt bi laa taxaw ne dem leen xoolal ma ñaari nag yu gën a mag ngeen indil ma ko. macha waaw donc loolu ak sant la. ak sant kenn mënu ci def lu dul sant ko. gërëm ko ñaanal ko ak yokkute ba bu déwénee. fii nii koñ bi tey dem ba nga xamante ni maanaam mel ni na ni waañ. bu ëllëgee fii nii ñu dem tànt ca bayal ba. def fa def fa géddu nag yi ak xar yeeg yooyu ba bu déwénee képp koo xamante ni da nga naan xaaral ma dem ca euh, Lansar. Mhm. Euh, koñ euh, ci koñam. Mhm. ñëw mën fa jël ay xéewal yóbbu ko sa kër. waaw loolu daal la ñu amoon ci ak sant boo xamante ni lu yëg ci suñu biir xol la bëgg koo yaatal nag. macha ba képp ku ko dégg. Mhm. mën cee jariñu. macha allah Fat Faye man ak moom ñoo bokk ndey ak baay. mais lu ma musul xam. waaw li may wax nii. li may wax nii dama koy xamle pour doomu aadama yi xam ne lii dañ ko war a jàngatee jàngat lañ ko war a jàppee macha allah du mbir moo xamante ne dañ ko war a jël mhm. yaa ngi may dégg mhm. di ko kii dañ am njàngat la ci nit ñi war a jëlee ba bu ëllëgee ku nekk mhm. bu la yàlla dénkee dërëm sax delloo ko suñu borom parce que adduna bii dañ fay jaar rek macha allah waaw day jaar waaye boo xam ne dañ fay jaar bu jàll rek macha lépp lu la fi yàlla jox lépp lu la fi yàlla may. Mhm. lu mu bari mu néew. Mhm. pour jaam ñi la rek. macha allah boo ko deful bis dina ñëw nga réccu loo doon amee alal ndax alal lu mu bari bari bari. Mhm. lu baax kese moo ci sa njariñ. def ci lu baax rek. sama waajur woo daf ma ko daan wax saa su ne mhm. mu ne ma alalu àdduna bari mu bari amul njëriñ li am njëriñ mooy def ci lu barke bu ëllëgee loo xamante ni bu ëllëgee mhm. boo demee sa bi bi su yombal xiyam di nga ko fu mën a fekk mhm. moom nag wax dëgg yàlla day jëf mu ngi bàyyi xel bis boobu macha te loolu dafa am solo ci àdduna bàyyi xel bis boobu moo waral ku jël say million tey ku ne xam na ne ci gàmmu màggal gi nii la demee woon gàmm gi bu ñëwee demee nii ñu xam ne loolu day tawféex goo xamante ne li ko waral dara waralu ko lu dul mi ngi bàyyi xel ne. Mhm. li ko yàlla dénk daf cee da ko war a ci jaamu yàlla yi. pour mën pour pour mën ci am gërëmal suñu borom. macha allah loolu laa amoon lu ma ciy wax. macha allah di di fësal sama mbégte. ah asalaamaaleykum. waaleykum salaam. man la Xaadim Touré. Mhm. Euh, nekk rakk ci kër gi. Mhm. di frère. te ci biir loolu tamit ma nekk euh, collègue nekk employé madame Guèye Fatou Faye nag moom wax si moom day yomb ndax jëfam ndax baaxam ndax social bi fànn yëpp nag ak leadership bi nga xam te mi ngi koy mëne ñu koy ñaanal si loolu yàlla gën ko si jëmal kanam ndax euh, lu mel ni bisu la ñëw fekk ab koñ boo xamante ni daanaka demoon na ba lii nii man gis naa ko fi gis lépp may nekk xale. te yàlla def na yàgg naa fi. macha allah. si jamonoy. mère yeeg paa yi bi ñu fi nekkoon la lii daan am. te lii man maa ngi koy ñu ngi may fàttali ay souvenirs d'enfance yu bëree bëree bëree bëri. ndax lii ay jouru tabaski. jouru korité laa ko doon gis si koñ bi. suñu papa yi suñu yaay yi loolu lañ doon def. moom loolu la dekki la tey. instant yi nii suñu papa yi suñu yaay yi ñu ngi bal mais. seen xol sedd na si jëfam ji moom ma macha allah ndax dafa boolewaat koñ bi suñ toog nekk benn macha allah ñëpp toog toggandoo uh-huh. ka fooree ñi nga xam ne gëjoon nañ gisante depuis ay weer wala romb sawaa lañ seekoon uh-huh. tey ñoo yendoondoo depuis démb ci guddi yendu tey ba heure bi nar a continuer guddi gàmm gi macha allah ku jëf lu mel noonu nag su gàmm uh-huh. non ñaaral nga sa bopp ñaaral sa gàmm mat na macha sa gàmm mat na yow moom bu lu am sax luy sikki saaka ci ci loolu ndax boo xoolee ci misaal rek ci gàttal Sénégal fii ñun dañoo baaxoo bernde. Mm-hmm. bernde dañ ko baaxoo ba ci Cheikh Béthio boo ko xoolee. Mm-hmm. cant gi muy woote. Mm-hmm. si la amee gërëm ak si la amee lépp lu mu am tey jii. macha allah cant yooyu ñu ko doon defee fii arrêt Cheikh Béthio. ndeysaan moo continué ba Touba ba gis ne délégation am su daan romb sax nit ñi dañ ko daan seetaan. macha allah ñëpp ko daan arrêté daa ñu def di xool convoi Cheikh Béthio. macha allah soxna si madame Guèye. Fatou Faye yàlla na ko yàlla may dayoo bu yegg foofu. macha allah ci biir Pikine fii. biir Dakar ba Sénégal ñëpp xamee ko noonu. ndax loolu amul pertement di def ngir nit di def te yàlla tax. Mhm. di def te séntu si dara en retour noo bareetul. te li ma am nag macha allah am na ñu ko am de. dëgg déggoo leen si gisoo leen si. dëgg kon moom su demee ba di ko def. Mhm. c'est parce que fi mu bokk la fi mu jóge la. kër gi mhm. man. daanaka suñu waa kër ñu si bëri màggee añ fi yaroo nañ fi am naa benn grand frère boo xam ne sax daanaka daaw fi géej mhm. mais kooku wax ci wax ci kër gi fii nii li fi daan am mhm. li fi amoon jamono bi fii seeni waajur nekkoon mhm. non da ngay da ngay am envie sax fekkee woon jamono yooyu mën fi dëkk ndax ndax ndax ndax ndax yaatu gi ñu fi yaatu woon. macha allah da ngay sax ñoom fii lañ dëkk fii lañ fii la seen papa ak seen yaay nekk. dëgg la macha allah loolu su amee ci ci ci ay waajur. Uh-huh. seen i doom bu ñu màggee loolu la ñuy xam. loolu la ñuy roy te loolu dafa am solo. éducation de base dafa baax si nit. te ci loolu tamit. moom soo xoolee li muy def nii non mm-hmm. jommuñu mm-hmm. peut-être que ñi ko xamul lay jaa lay jaaxal mm-hmm. mais soo jëflanteeg moom tuuti ci wàllu liggéey nga jëflanteeg moom nga xam di nga xam kii ba nit la di nga xam dayoom fu mu àgg ci compétence am ci rigueur ak ci leadership am te ci loolu nag man dama ko ci gërëm ndax yàlla def ma jaar naa ci ay entreprise yu bëri liggéey naag tubaab liggéey naag naar Mm-hmm. def naa cinq ans seen i rawatou def naa trois ans CSTM Safar. macha allah fii Iranien ñoo ko diriger fii ay français ñoo ko diriger. Mm-hmm. seen ñaari système yëpp xam naa leen. te mm-hmm. xam naa ñoom ni ñu daan doxalee nan lañ ban comportement lañ amoon ci seen i employé. mais bi ma ñëwee ak madame Guèye. non j'ai j'ai découvert un autre environnement. beneen environnement de de de de de management boo xam ni. c'est totalement différent ak système boobu. macha allah li muy laaj. comme comme résultat. ak ñii li ñu doon jittewoo ci yeneen détails sax. mu mhm. bokk ko si. macha allah elle est directe elle va droit au ci loolu loolu loolu nag vraiment dafa dafa jafe. dafa jafe si ngit nit mhm. koo xamante bi nii su la waree wax li mu lay wax ci wàllu liggéey. Mhm. elle n'hésite pas. te loolu lu employé soxla. pour que mu mën a xam man orientation la am. lan la war a mën a def. loolu parenthèse la bu ma tijji woon pour wax ni moom vraiment lii nii nii compétence am la lii nii mérite am la lii nii du loo xamante lu ko dab la wala loo xamante ni luñ ko uh-huh. lu yomb la si moom non non romb na loolu parce que parce que parce que Sénégal comme li ma la wax nii si wàllu moyen uh-huh. si wàllu moyen yàlla def na am na ñoo xam ne yàlla suturaal na leen côté boobu. am nañ li mu am. mais nañ koy utiliser. par rapport ak moom ni mu koy utiliser waxuma la sànq mais moom li muy def nii rek bu ko continuer. ñeneen dinañ ci roy ba nga xamante ni dëkk bi dina mën a gën a am beneen yeneen perspective. création d' emploi bi ñuy wax. Mhm. non moom mi ci nekk si jéego yoo xamante ni macha allah non yàlla bu si cat dugg macha allah yàlla bu si cat dugg macha allah gis naa ne ñu ngi ci yoon boo xam ne bu ñu ko continuer non dinañ dem ba yegg foo xamante ne dëkk bi yëpp dinañ wax suñu macha allah kon te loolu du du lenn lu dul mérite ak compétence macha allah te yàlla maa ngi siy ñaan bu baax yàlla yàlla taxu ñu si si barke guddi gi bi nekk macha allah ak jëf mu jëf nga xamante ne moom ñaanal na boppam ci guddi gi yàlla lañ ñaan gi nangu ba ñu ciy séentu mm. ñu am ko ci ba ay yeneen ay at yi di ñëw mën ren mu mën lu ko ful fuuf yàlla na ko yàlla def ci bàq. macha allah. Euh, nuyu d'abord salaamaaleykum. di ziar ñëpp. Euh, di sant yàlla. di gërëm suñu waajur. di gërëm tamit sama borom kër. di gërëm sama frère yi samay sœur. waa di wax alhamdulilah rabbil alamin di santaat yàlla di wax alhamdulilah rabbi alamin di ko santaat di wax alhamdulilah rabbi alamin ndax wax duñ ci lenn te yàlla buñ ci gis ndax képp ku jëf rek yàlla moo jël jëf rek ca mm-hmm. doomu aadama yi di def yëpp ci àdduna bi ay feeñuwaay la rek mm-hmm. ndax borom bi rek kay jëf yàlla mooy joxe mm-hmm. te mooy mooy nangu mm-hmm. Faatumata bintu yaa Rasulullah dañ ko mës a dafa mës a am yalwaankat bu ñëw mu yalwaan mu dem jël yére di ko ko sarax bi koy sarax mu jël parfum parfum ñëw sarax ko yalwaankat bi yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ne waa lu si jublu mu ne ko loxo yàlla ba muy jaar allahu akbar kon ñu loolu rek la ñuy topp gisuñu lenn nag mhm. bugguñu leen nit mhm. lu ngërëmal suñu borom mhm. moom miñ jëf loo la ñuy jëf ñu ci ngërëmal waaw di gërëm sama frère bii xaadim wax léegi. macha ndax dañ ne feccum liir bu neexee mooy jaajàpp ci mag yeex tey booy def lu baax. Uh-huh. daa am ñu lu ci uh-huh. ndax xëy na lii ma def yëpp def naa ko te bougé fi ma toog. Uh-huh. démb laa fi ñëw toog waxtaan comme d'habitude ñu fi ñëwee ak ma xam ne kon. am naa ñi nga xam ne ni may xirtal ci lu baax mhm. di ma xirtal ci diine mhm. di ma xirtal ci may sàmmonte mhm. sama ëllëg ndax fii kat bu fi liggéeyul doo ko fa fekk te doomu aadama bindoo na loo xam ne boo ko defalee tey suba defaloo ko mu xarab na waaye yàlla loo ko lebal mu fay am te kooku rek jaral lebal te moom rek la ñuy lebal di kontaan. Mhm. ndax wallaahi xalaatee bu ko woon mooy santaat rek. santaat yàlla ci askan moom ma jaarale. Mhm. ndax fii may wax ak fii daara la. Mhm. fii sama kër bàyyi la. mbàkke mbàkke bu ne daanaka fanaan def ñu sant yàlla ci loolu. képp kuy sama frère wala sama sœur boo am kër sa kër daara la. kon nag. ma ne topp ci yoon boobu rek laa sant di wax alhamdulilah di ñaanit di ñaan. ndax tey guddi ñaan la ndax suñu soppe ba suñu xarit bi ki nga xam ne moo gën ñëpp. moom mooy guddeem. may ñaan jiital ñaan bi sama borom kër. jiital ñaan bi. samay waajur yi génn àdduna ak waajur ñëpp. Mhm. yàlla na yàlla leen àjjana yi firdaws. amiin yaa rabbal aalamiin. laa boole. di ñaanal sama borom kër yàlla yokk ko defal ko jàmm mhm. defal ko tawféex. Mhm. di ñaanal sama frère yi sama sœur yi. ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi maa ngi leen di ñaanal jàmm. yàlla nañu yàlla defal jàmm. amiin amiin yàlla na suñu ndax xol bu amee jàmm rek. Fallaaw. yàlla nañu ko yàlla def. amiin amiin jàmm rek laay ñaan. alhamdulilah kontaan nañu ci yow baax a baax a baax. alhamdulilah.